yàlla gërëm naa yeneen gërëm naa ku xam gërëm ma jikko janta i jara te xëri bantu ni tagg saaliw yaralu yaraloo xamalu yeenoo xollu salal noo me yeppu ni mooy bu la xiyaas teg nañ ko am nañ ci mbégte lool nee na lii nga xam ni seigneur loo ñoom def nañ ko ak waa mooy bu la xiyaas yàlla nañ ko yàgg a teewee nee Serigne Cheikh Mbacke Serigne Salim mi nga xam ne moo ñu ko sant nga xam ni moo fi toogal Serigne Salim yàlla bàyyi ko fi mu yàgg koo woote mu yàgg koo wuy si nee na moo koy rakam yëpp ak ñun taalibe yëpp nee yàlla na ko yàlla nangul yéen waa Mouhamadul Akyaasi si jëf-jëf ji siñoor nee na yéen ñi jëf-jëf ji yàlla na yàlla taxaw dañoo bëgg yëf yi gaaw moo tax laaj jëf kilifa gi jël kàddu gi ne yàlla na leen yàlla taxaw te dëgëral leen lu ngeen man ren rek yàlla na ngeen man bu déwénee lu kopp soxna Fama loo ci teg loo koy laajaat xanaa mbégte rek ban mbégte nga am tey nga gis convoi bi nga xam ni ñoom la ñu àndal ñu ñëw wuy la indi la say añ waaw xanaa sant di sant rek ndax liggéeyal sëñ Tuubaa moom a toll di gis doole sëñ rawatina sëñ Saliou mi nga xam ne nag moo moom fii di Xelkom nga xam ne murid yi seen bëgg si Xelkom moom kenn mun koo tat kenn mënu ko nat fu ne li nit di fexe di riir di ñëw yeneen ngeen di def lu am solo li nga xam ne chaque année ngeen di ko indi ñu ngi ñu ngi gis yokkute gi di gis taar bi di ci sant ñëpp sant nañ ci chaque année ñu jot ñi ngi ñaan daal dañ leen di ñaanal daal ak yokk ay ca nag kii ma taxawal mooy soxna may nit ku baax ku am ambition waaye ku nangoo liggéey ki nga xam ni institut bu télé yor waaye dañu kat li ma yor am ko muy sama alal dama ciy góorgóorlu liggéey ci sëñ Bamba rawatina nag ñu ne xel ko mu Serigne Saliou ji nga xam daf tubaar fakal la boo gisee nii mën ni départ ak mën ay téeméeri mën ay manqué ci digg def. maa ngi lay fay tey ban mbégte nga am bi nga ñëwee xelkom xelkom yëpp taxaw fes dell. vraiment am naa mbégte bu baax. vraiment di teewee année bi xelkom. maa ngi koy remercier vraiment soxna Sidi. vraiment kontaan nañ di feete mbégte mi di mu jaral ñu ñu bàyyi suñu lépp ñëw fii ci xelkom. bi mooy sa première année xelkom. waaw bi mooy sama première. lan nga yëg lan nga yëg. vraiment li ma yëg kontaan naa sama xol sedd na. vraiment ñoo ngi ñaan euh, vraiment liñ fiy utsi ci barke sëñ Saliou yàlla mëtale lépp incha allah macha allah yaag mbooloo mi ngi àndal yëpp ñu ngi kontaan ci yow bu baax a baax a baax a baax. Euh, di wax nag euh, mi ngi noonu soxna Fama bi muy soxna May bi muy ñëw. gis naa be teraanga gi mu indaale. andi na teraanga ju bari waaye ànd naag Kaba ànd sama xarit waaye ànd naag mbaakol mbaakol bi Talla. ñu def del forte délégation boole koog teral ñu jox ñu ay enveloppe ne Alassane Ndiaye li nga ma def léegi mm. loolu ma sama waa ji def mm. moom la def tamit tubaar fakal la ki nga ma booleel mm. muy sama protocole waaye nag xel koom daal mi ngi noonu mu bëgg soxna Fatou Sidi moom loolu loolu la yàlla dogal eh, asif daal bindu ni soxna May ñëw na xel koom à chiffre bind na ko mu saam ci réew mi waaye nag na ki nga xam ne nag mooy sëñ si sëñ Sidee ko jur sëtu sëñ Abdoulaat bi bég na ci yow waaye waa Xelkom bég nañu ci yow waaye mbooloo mi nga àndal bég nañu ci yow waaye taalibe yi ñu fekk bég na ci yow ay ca yaay faal bi jëlama ñu dem di jaamu yàlla min karim foo yendu yónni say morom min dee fi la seeni xol